asalaamaaleykum mbokk internetu référence actu ñu amaan mbégte ak contentement di ñëw si seen info people tey nag li ñu leen indiloon muy kaabu doy waar kaawu kan Alboury Mbeur Alboury Mbeur nag nekk na nit koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ndax ñëpp ràññee nañ ko ci ax lu làmb ginnaaw ay weer ci ginnaaw mu amoon ay wax yu mu jëmale woon ci askan wi après benn combat bu mu amoon victoire Alboury nag xamaloon nañu ne moom du fookat maanaam dafa vierge musul xam jigéen ba yëkkati kàddu ne moom ngeen baal ma ci kàddu bi du samay wax ay waxu Alboury Mbër la moo ne woon moom day raxas ba mu set daal di denc wax jooju leen nag nit ñu bëri ci Sénégal defoon nañ ko si seen bopp waaye mel na ni Alboury Mbër loolu mu doon wax nekkul ci moom ndax ni ki démb lañ ko gis si benn lomotif ak benn xale bu jigéen mu doon amal benn appel vidéo xale bu jigéen boobu nag daal di nay génnee vidéo yi vidéo yi nag nekk na vidéo yi ñaaw ñuy wane Alboury Mbeur Alboury nag ndax loolu noonu mu doon wax naan moom du fookat ay waxu neexal làmb rek la woon wala dafa nekk lu nekk ci moom xale bu jigéen boobu nag daal di nay oññu suturaam génnee lépp li nga xamante ne nii lu nëbbu woon la ci moom mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci seen info people ñu leen jox dig daje ci seen beneen numéro.